Elhadji Ousseynou jàmm ci xibaar yéen kaay yi nga xam ne nag moom la xëyandoo njiitu réew mi Macky Sall nag ki nga xam ne nag moom la ñuy wax man lay neex rek ma yi nga xamal ne kàddoom yooyu kay jamono ji maanaam daal njiitu dafa mel ne kay réewum Sénégal jamono ji mooy buur mooy bu mi ndax kàddu yi nga xam ne nag yëkkati ko ci lépp waaye nag bu fekkee ne ñun dafa yaakaar ne daal ñun danañ ko sukkal ak raamal waa ak di ko tarwiyew ngir mu jéggal Khalifa Bakar Sall loolee bu dee loolu la mën naa dallu ji soi di ñu xamal ne moom kay la laajte maanaam jamono ji lan moo tax njiitu réew mi di a ñu daal ne moo di amee danse ko loolee daal mbir la moo xam ne waroon naa jox leçon ki nga xam ne nag moo di njiitu réew mi ca jamono joojee yéenekaay bi di di ñu xamal ne amee danse ko tey ko di ñu ne moom ñu xamal ne maanaam daal lépp loo xam ne nag jëm ne nag ñooy politiciens yi ñu xamal ne mbir ya kay noonee la demee ci jamono jojee laas yéenekaay di ñu xamal ne maître Abdoulaye Wade ki fi nekkoon njiit réew mi di jëmale ci jëmu jojee nga xam ne moo dëdd di Ahmed Dansokh Wade di ñu xamal ne Ahmed Dansokh kay nit la koo xam ko xam ne nag moo di amee danso ca di ko xamal ne ko sa doom ji di Karim Meïssa Wade bul fexe ba mu dugg ci politique bu duggee ci politique maanaam daal dinaa la porter plainte jàppal ne du sa doom kese ndax man mi baayam laa mu nekk ay kàddu yu daw yaram yoo xam ne amee danso ko moo ko dénk ki fi nekkoon njiit réew mi di Abdoulaye Wade mu dikkaat ci kàddu yu mel ñu dikkaat ci mbirum Karim Meïssa Wade moom yéen Karim Wade kay jamono ji ma nga ci Rwanda yéen bi duñu xamal ne gannaaw kay kay jamono ji lépp loo xam ne nag jikko yu ñaaw yi ma ngay gën di yokk di gën di wulee ñaay yéen bi duñu xamal ne am na ñoo xam ne ñaari lesbienne waaw kenn ka daal maanaam daal gannaaw ba mu tàqalikoo ak këram nekk ak beneen lesbienne ba mu dem ba yàgg nga bëgg delluwaat ki nga xam ne nag moo di ah lànk ne du dellu ca fi nga xam ne nag moo di jëkkëram ja réewum Sénégal nag day bëgg xar wala day bëgg toj lii lu mu doon dëkk boo xam ne booy fajab tànk biir di metti ngay faj biir ndigg la maanaam daal Sénégal benn réew téeméeri jafe-jafe jafe-jafe baax na bu ñu bàyyiwut yi de nawet bi dana yeex nangu ba suba